nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo njiitu réew mi di Macky sàll ak kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko wax ne amul ay jumtukaay yoo xam ne dina daal tax Sénégal dem ca Chine jëli étudiants yi nga xamante ni ñoo fa nekk kàddu yooyu nag daan nay naqari bu baax a baax waajuru ñi nga xam ne maanaam ñoo jur étudiants ya fa nekk démb ñu doon janoo ak taskatu xabaar yi waaye nag wane nañ seen naqar lool ci kàddu yi nga xam ne makki Sall yëkkati na ko ñoom sax ñu jàpp ne kàddu yooyu du kàddu kilifa yéenekaay gii di réew mi quotidien ak las ak vox yi waajuru xale yi ñoom nag ni ki démb daat nañuy jooy wane seen naqar lool ñoom sax nag daat na ñuy wax ne li gën a metti mooy nga gis ak déeguy ñëw te mënoo ci dara li Macky Sall doxalee mooy nag boddi nag ak njabootam bàyyi leen fële ca àll ba yéen a kaay gii di source ah waajuru xale yi ñoom nag ñuy sàkku nag ne bu ñu fa faatoo maanaam bu ñu fa deeyee bu ñu leen fa nag taalee jamono ji ñoom amatuñu benn yaakaara journal bi mu ñu xamal lan ñu waajuru xale yi kay jamono ji nag li leen dese mooy seen bu ñu fa dee daal maanaam bu leen kenn dajale daal nañu def ay moyens ngir nag andi leen ci réew mi yéen a kaay gi mu ñu xamal naan ñu moom la témoin coronavirus daal mën nañu koo jàppe nag Ebola chinois maanaam teg-teg ñoom ñaar kiif kiif yéen a kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal naan ñu jàngoro ji di coronavirus ni ki démb daat nay tax ministre bi ñu dénk maanaam wàllu wér yaram gi di Abdoulaye Diouf Sarr mu doon joxe nag ay assurance di dalal xel yi waaye nag daat nay wax ne jàngoro ji daal ne yow amee nga joojale jàngoro yéen kaay gii di las mu ñu xamal lañu Dakar en alerte Abdoulaye Diouf Sarr moom sax daal nay woo taskatu xabaar yi woo nag mboolem ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci wàllum wér gi yaram gi kenn ku nekk am vigilance ci mbir mi Assane Samb directeur publication yéen kaay gii di réew mi quotidien xëy nag jël xëlimam daa di wax ci biir journal bi ne en tout cas situation bi nga xam ne moom la fukk ak ñett étudiants sénégalais yi nekk Chine daat nay doy lool la waaye nag li nga xam ne moo am ba des mooy na ak lees bi nga xam ne nag njiitu Macky Sall daan na koy def am na lu làqu ca ginnaaw dafa daal di fulu lëndëm yéene kaay gi mu ñu xamal ñu nag waajuru xale yi daal ñoom jamono ji am na ñu njàqare ak tiis mere nañu lool Macky Sall journal bi de la Turbine mu ñu xamal ñu Macky Sall njiitu réew mi jamono ji ma ngi ci guddi gu bët sétagu la ginnaaw nag njëg yi nga xamante ni ñooy yokk suba ngoon guddeeg bëccëg askanu Sénégal am lu leen naqari lool lool ci mbir moomu maanaam dunduk askan wi gën a metti gën a am ay jafe-jafe gën am ay tolof tolof boo demee nag ci kaw gi monde rural bi ñoom ñu am ay jafeñ-jafeñ rawatina ci lu jëm ci njënd ak njaayum gerte gi ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi ñoom ñoo ngi mer ba maara day taali étudiants yi kazalika nappkat yi journal bi ne Macky Sall jamono ji nag maanaam ma ngi ci guddi gu bët gu la journal bi di réew mi ko di jeem mu daal di xëy dikk ci forum du premier emploi bi nga xam ne maanaam nag daat nay jeex ni ki démb te waa MEDES mbootaay gi ëmb entreprise Sénégal te président Mbagnick Diop jiite ko ñoom ñoo ko doon organiser waaye nag ci kanamu ndaw ñu takkoo takkul président Mbagnick Diop yëkkati nag ab message boo xamante ni daal bu daal di daw yaram la daan na leen di wax ne leen yokku leen seen jom bu leen wàcce benn yoon seen loxo saa su nekk di leen góorgóorlu di provoquer li nga xam ne mooy seen charge maanaam bu leen bàyyeeku bu leen yox yoxi journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu wax na leen tamit na leen gëm leen seen bopp ba pare ngir ngeen mën a am liggéey jàppale seeni waajuro respecté ñi nga xamante ni ñoo leen jur ak seeni mag bu leen fàtte tamit kóllëre bii nekk fukk ak juróom-ñeenteelu boo xam ne forum du premier emploi ñoo ko doon organiser lépp nag jëm ci ana nan la ñuy def taxaw ba xale yi daal di am liggéeya yéen kaay gii ba tey mu daal di dikk nag ci Cheikh Ndiaye ñu gën ko xam ci Cheikh Dakar directeur général bu CICES ginnaaw nag ay tojaange ak i loxoor njaaxum yi nga xam ne maanaam daan nañ ko koy joxaar bi baaraamu tuma ci Cour des comptes moom njiitul CICES ni ki démb nag ci presse bi ci la daal di yendu di weddi tuuma yi nga xamante ni gaal dañ ko ci ak ndoddam yéen kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal naa ñu Cheikh Ndiaye kay njiitul CICES moom nag dafa daal di tuumaal ñi nga xam ne ñooy taskatu xabaar yi yéen kaay gi libération mu ñu xamal lan ñu nag bu ngeexoox foofe nag banditisme dëgg moo fa am ak wëyu ay mbiri sàmb sura bali ndax nag dañoo falsifié li nga xam ne mooy ay signature daa dafay def ay marché fictif ba pare wax loo xamante ni jënd nañ ko te dara amu ca ay scandale jëm ci wàllum suuf ak lu ne fa am journal bi di Sud Quotidien mu daal di xëy nag ci marché Petersen bi nga xam ne dafa daal di lakk waaye nag ñi nga xam ne ñooy commerçant yi ñoom nag dañoo daal di tuumal mairie bu Dakar xam ne mooy maire ba di Aliou Ndoye yéen daal di xëy nag ci Gris mi nga xam moytuwulee moo nar a nekk juróom-ñaar ci ay saison yoo xamante ni Gris Bordeaux daan na koy def année blanche moom nag def na ci làmb ji lu toll si ñaar fukki at ak ñett bëri na ñaar fukk ak ñaar ci ay combat am na nag fukk ak benn ci ay victoire am na juróom-ñeent ci ay défaite